Je rends grâce à Dieu d'avoir eu la possibilité pour la plupart des Sénégalais d'accomplir ce devoir citoyen qui est de choisir. Si vous parlez un peu plus fort, parce que nous Le vote s'est très bien passé. Les échos aussi qui nous parviennent de l'intérieur du pays laissent penser que jusqu'à présent, le vote conditions sont, sont bonnes. Je pense qu'il n'y connaître le prochain président de la République. Le moral est Le très bon. Nous avons fait ce que nous avions à faire, le tour du pays, de présenter le, programme, qui est un programme de consolidation, d'approfondissement, euh, d'accélération. de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc nous allons consolider, nous allons approfondir, nous allons accélérer, nous allons améliorer et nous irons plus vite. Ah, ah Je pense que tout cela va se passer dans de très bonnes conditions. On espère. Euh, quel est le message que vous lancez euh, Le message que nous lançons, c'est un message de paix. Le Sénégal nous appartient. Nous, nous sommes tous des enfants de ce pays. Nous avons compétit. Euh, la campagne électorale s'est bien passée. quand bien même elle a été courte, en tout cas elle s'est passée dans des conditions assez particulières, elle a été courte, mais dans la sérénité, dans le calme, il n'y a pas eu de, de, de, de, violence, en tout cas, euh, n'a pas été signalé de violence euh, excessive. Je pense que, je pense que c'est, on peut espérer que tout cela se terminera très bien. Mon souhait le plus ardent, c'est que demain matin, que les Sénégalais puissent connaître le prochain président et qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Vous êtes confiant pour le premier tour Gagner suis, les élections premier tour très, très, confiant. Je suis très, très confiant. D'accord. Président, nous devons que tu wolof. Oui, jërëjëf. Kon dañuy sant ci Yàlla julli ci Yonent bi. Euh, ñëw nañ fii tey ci suba fi ñu ko doon faral di defee woote. Euh, nañ ko defe gis nañu aussi conditions yi baax na. Li ñu dégg ba tey jii mooy nit ñaa ngi woote ci jàmm ak salaam ñu ngi ñaan Sénégalais ñu génn dem woote ji parce que waxtu bi dañu war a wax waxtu bi dañu war a tànn kii xam ne moom mooy jiite réew mi euh, def nañu campagne électorale ci jàmm ak salaam euh, coow li bari woon na waaye li ci ëpp jàmm ak salaam la amee loolu nag mooy Sénégal euh, mën nañ di werante mën nañ di xëccoo mais ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay ñun ñoo bokk réew mi te réew moom important li ñaan fi mu nekk nii mooy na yëpp jeex jàmm ak salaam euh, suba senegal xam kan moo war a nekk président de la république yaakaar nañ ni li nga xam ne ñun wax nañ ko ak li nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne gis nañ ko ci mbooloo jàpp nañ ni ñun ñii la war a nekk waaye suba bëgg naa daal Sénégalais yëpp lu ñu xëyee ku nekk dem ci sa soxla dem ci sa aajo. am nga yaakaar ci jàmm ak am nga yaakaar gagné ko ci ci premier tour. waaw am naa yaakaar bu baax nag am naa yaakaar bu baax ci li ñu gis li nit ñi won ñu leen di sant bu baax di leen gërëm parce que ni ñu nit ñi doon dégloo nit ñu toppee ci campagne bi doon na loo xam ni dal na suñu xel li ñu bëgg mooy liggéey bu tàmbali bu gaaw bu ma sañoon suba gannaaw suba gën baa tardé ñu nekk ci liggéey bi ndax réew mi soxla na ko réew mi yitte woon nañ ko xale yi mag ñi jigéen ñi góor ñi Sénégal yëpp. bëgg nañu am jàmm loolu la ñu wane ci campagne bi Sénégal jàmm la ñu bëgg loolu la ñu wane Sénégal li ñu bëgg mooy bokk nay bokk bàyyi loolu la ñu wane Sénégal li ñu bëgg moom mooy kuy jublu ci seen i soxla ànd ak ñoom jéem ko saafara loolu la amoon li may wax ma leen sant leen gërëm jërëjëf